asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 11 février 2020 ñu ñëw ci ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la journal record wala leewtoo point net wala sax fa nga xam ne nii moo di ca Leewtoo TV mu mel ni ki daal li leer ba leer daal dafa mel ni nag ginnaaw coow li nga xam ne moo amoon bërki démb ca arène national ba di dimanche 9 février bii nu nekk daal ca làmb ja nga xam ne xaadim sàmba ko tëggoon boole woon diggante buur siin ëma seen siñor ñaar ñoo ñu bëre ba daanante ñaar ñi nga xam ne nag ñoom jotuñoo bëre jotuñoo daanante waaye xeex la ñu mujj a def jaxasoo ardo am caw yoon sées ya damm maanaam daal mu mel ni kera daal arène ba mujj a mel ni sabar gu tas ku ney def la la neex waaye nag daa mel ni ku ci ne comme da def la la neex moom CNG tamit wan na leen ne ñun moom du ngeen ñu toroxal wala ngeen ñu leen di bàyyi ngeen di toroxal ñi nga xam ne nii ñoom ñooy waa lamb wala lamb réew mi du mën a am moo tax nag gaay moom génne nañ yar ba de fëgg leen ko ba mu saf sap sap sap la ñu def mu mel ni ki daal record moom mu ngi ñuy xamal ne daal gaay moom daa mel ni ku leen bëgg a toroxal daa mel ni moo tax ñoom itam ñu génnew yet nag fëgg ko gaaya jàppal bu dee ki nga xam ne nii moo di Alioune Seye Junior la moom jàppal wala Alioune Seye deux moom li leer ba leer moom aj nañ ko six mois yoo xam ne daal moom du ko wàcc ci làmb ji nan day takk ngemb di bëree ñu ne déet ne waaye fa la ñuy yem ñu ne ñàkk jariñu ma nga xam ne nag moom daa mel ni coow la la ko ca waa këram la jóge moom itam daa mel ni daal atum yàlla moo xam ne nii aj nañ ko écrit ba mu nekk di caarooy mbooloo bëree moom dootuñ ko def ci làmb ji fii atum yàlla fukki weer ak ñaar kenn kuy ne ci écrit ba di ti daal jàppal ne moom du am la ca des mooy ñàkk jariñu la nga xam ne moom la desoon ci xaalis ca CNC ba confisqué nañ ko maanaam teges na ci loxo dal di koy nangu maam naan daal loola moom ñàkk na ko kon moom na leerab manaan seeram ne moom daal reliquat moom bu mu ko xaar wala mu koy séentu du ko gis ak ay bët ndax ñàkk na la mu fa amoon nangu nañ ko keneen koo xam ne nii moom mook ñàkk ñoo àndoon tamit te mu mel ni moom dañ koo xàmme wala ñu jàpp aw turam muy aali ndaw moom ma nga xam ne moo yor ñàkk ci wàllu mystique di ko préparé moom itam daa mel ni daal lamb ji lañ ko tere wala enceinte lamb ji boog tere nañ ko ko à vie maanaam daal moom enceinte moom dootu wala lu mel ni ki noonu maanaam daal moom ba ba mu fiy jóge xaw ma kañ lay dool yàlla na yéex daal lamb moom na xam ne wàcc ci dootu ko def mu mel ni ki tamit xibaar yooya mu nga Leewtoo point mu nga recours record book li am solo daal mooy que ni jàppal CNG moom xaaruñu muy dem dikkal 24 heures la ñu jël seen ay décision def la nga xam ne ni moom lañ wax ne mooy tax mbir yi dellu si ci aw yoon leneen loo xam ne tamit dañ koy dem ci record fekk ko fa muy journal baa ngi ñuy daal mois de février yomb naa nekk weer woo xam ne daal weer wu lay faral di doon ndax nag faralees na cay taxawal ay combat yu mag ñëw na ci combat yoo xam ne boobu ba tey ñu ngi koy dox te xëy na ba tey sotteegul moo xam Bombardier Eumeu Sène la wala Boy Niang ak Balla Gaye numéro 2 record a xëy ñëw tey di ñu wax lu mel ne noonu leneen loo xam ne tamit fekkaat nañ ko fa nga xam ne mooy ca sunu làmb mooy diggante Elton ak Nees ñu ne ñii mbaar làmb ji duñu leen ñàkk ndax nag boobu ba tey daal gisee su leen ñu wàcc bëre bëri na yoo xam ne nii daal def nañ ko yoo xam ne bëri wuñ ko maanaam ay année balance yoo xam ne tegle nañ ko koo xam ne nii moom bëri la bëggat muy wulli de wulli de nag xëy na ci yëglikaay bi di sunu làmb ne na li leer ba leer daal digganteem ak doomu dàngu moom ñu ngi koy démarché wulli de loolu la xëy tey ñëw dina ko wax usine doole moom nee na li leer ba leer daal jàppal nee na saalum saalum dafa nangu la bëre ak moom loolu mooy wax ki nga xam ne nii moom moo di usine doole ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb leneen loo xam ne tamit dañ cay dem mu mel mel ni ki dimanche ji nu génn moom lamb yi bëri na trop trop trop ci fi nga xam ne nii moo di ci réew mi moo xam Dakar la wala mooy Thiès wala xam ne mooy ci mbuur bu dee fii ci dakaar la moom Bour Sine moom combat ba mu bëre am na ñoo xam ne ñëw nañ di ko analyser muy ña nga xam ne ñoo ko yor ak ña nga xam ne ñoo yor Eumeu Sène senior bu dee ki nga xam ne nag moo di mbay juuf la ma nga xam ne nii moom moo yor ka nga xam ne moo di Bour Sine daal la mu xamle ne na Eumeu si ñor seen stratégie moom la ñëw jaxase yàqu ko moo tax xëy na mu gàñe Bour du lool de sa mbër kay la mu yaakaaroon moom la fa fekkul dafa foogoon ne yaay moo dàq xeex ki nga xam ne moo di Eumeu Sène senior Ibrahima Mbaye moom may ab entraîneur nekk ci kii moom nam la mu xam ne daal ne na Bour Sine dafa insisté trop ci wàllum bagaar mi moo ko yóbbi li ko dal dal ko keneen koo xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne mi moom lamba yi ñu doon bëri wane nañ te seen bopp Alaaji Gaynde moom daa mel ni la mu nekk ca région de Thiès mu ngi tey continuer daan daal di dem général moom maanaam ci 2 minutes 21 secondes la wan sil bu sali wala boo kam doon daal morom di sil bu sali daan ko jële bu leeral leeral leer mu mel ni que tamit bu nu continuer ñëw fa nga xam ne nii moo di ca lamb simple ji yëglikaay yi ñu ngi ñuy xamal ne sunu lamb ne na daal dimanche ji nu génn stadium Lamine bi Guèye ba ca Kaolack daal la fa amoon lamb simple ji maam Biram Jaw ak Batista numéro 2 daal tournoi moom ñoo ko nangu teg ci seen ay loxo ka nga xam ne nii nag moo nangu tournoi ca Marloj moo di ordinateur le 6 ba le 9 février daal lañ fa tegoon moo yi tamit xëy nañ wax ji tamit wane na boppam wala boog daal ba mu commencé ba tey bu dee gagné te na ko moom daa mel ni dimanche ji ñu génne nag gagné mooy muy ka nga xam ne nii moo di Boy Faye tournoi ba nga xam ne daal moo amoon Adrien Senghor dimanche ji ñu génn moom moo ko gagné daan Ibou Ndiaye ubbali yóbbu lañ fa tegoon record xëy ñëw wax nu ko Cheikh Tidiane ñaa moom yëglekaay bi di record xamal nañu ne daal moom daa mel ni ab yonent ca fa nga xam ne fa la dëkk ndax nag lañ fa tegoon moo ko jël ka mu dajal final nag mooy Cheikhou Diouf ma nga xam ne nii daal mooy bu sum moom la dajal mel ni ñoom ñaar ñëpp ay mbëri équipe nationale nañ maanaam daal ay ancien international na leen yëglikaay bi nga xam ne nii moo di record xëy tey waaye daa mel ni nag ña demoon ca Alger daal ñibbi si moom tey la koy def record wax nañu ko muy Lions yi ak Lions yi tey ci ngoon la ñuy dugg si ci réew mi rentrée Dakar caaka fay nag mu ngay wax ca mbir mooma la mu leen di yokkal ak fa mu leen mën a yóbbu équipe nationale waaye li jara wax daal mooy kani ñi nga xam ne nii yàgg maar bu ñu wala hôpital wala otob jàmbur ñu tàll wala bu ñu meree na ci arène damm séese yàqate ko te kenn xamul daal li ñuy def fu ñu ko teg war nañu xoolaat seen bopp wàññi seen gàllaaj ndax ñu jam leen ndax nag yaakaar naa ne lu ñëpp bokk yàgg maar deesu ko yàq lu ñëpp bokk itam kenn du ko sàcc kon lépp ñëpp lu nay ku ne da caa ne mbokk waa Leewtoo TV ni leen nuyu di gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu la ziar waaw maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di delloo ziar di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk si àddina bi rek di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si ñoom te nag Babacar journaux yi suñu lamb ak li nga xam ne muy record ñoom ñëpp ñëw nañ si incident bi nga xam ne moo xewoon euh, dimanche foofu si arène nationale démb nag CNG nag moom xaaral affaire yi sedd ginnaaw bu defee seen réunion nag euh, aaya bi comme la ñuy wax rek saaba ba jaasi ba dal na si kaw euh, ñi nga xam ñoom noo defoon incident yooyu ki nga xam ne moom mooy Alioune Seye junior Alioune Seye numéro 2 tëgg na euh, daan nañ ko 6 mois ferme yoo xam du bëre ki nga xam ne mooy ñàkk jëriñu ak écurie bi ñoom ñëpp dañu toog atu yàlla duñu bëre maanaam seen sanction le 10 février 2000. 21 moom lay jeex te nee nañu tamit euh, ki nga xam ne moo sotti woon saafara ki nga xam ne mooy Alioune Seye kooku moom giir dundam dañ ko tere rek li nga xam ni mooy enceinte bi. waaw muy loo xam ne nii daal ah comme li ñu koy waxee rek olof nag dana lu ne këtt lu ne jon na koy faj. yaa ngi dégg te defe naa kilifa itam bu ñu leen fi tegee lu mel nii bokk na ci parce que teguñu leen fañ leen teg rek pour ñu toog fa nii rek dañ leen fa teg pour que ñuy tegal ñuy teg mbir yi ci aw yoon yaa ngi dégg man nag damay wax que ni mbër yi ci seen wàllu bopp ñoom ñoo war a sàmm làmb ñoom mbër yi en personne parce que lu tax mooy ñoom dañ ciy tedd parce que tey yow bala nga am ci làmb dara mbër mi daa fayeku bala cee keneen am dara mbër mi dafa fayeku parce que man lu tax ñoom yi ñoom ñooy fayeku ay ñoom ñooy am succès bi ñoom lépp ñoom lay topp am na ñoo xam ne nag ay ànd rek lañu ànd yooyu da nga leen di xamal ku ci ne fa mu war a yem ak la mu war a def yaa ngi dégg bul nangu ñu parce que lii am nii tey xam nga tey caaroy mbooloo bi ñu aj leen atum yàlla un an ferme benn ba dootu fa bëri lu leen ko yóbbee benn nit est-ce que loolu jar na ko voilà exactement tey aj nañ écrit ba parce que tamit mënee su da bàyyi ay nit làmb dañ ko organiser dafa am ay règle réew mi réewum droit la du ñu bàyyi nit ki ku ne di def lu la neex ci mbir loolu mënta ne yaa ngi dégg ki nga xam ne mooy Alioune Seye tamit aj nañ ko 6 mois parce que xëy na moom am na ñoo xam ne dañ ne waru ko na fay am na ñoo xam ne dañ ne war naa fayu na ko yàgg ko gis sëtti nit mais daan gis mooy nit ki daan daan nga ko sotti dara sax mais da nga ko koy sotti ba yow non faw mu réagir Alioune loolu xam naa ne mu bokk bokk na ci li motiver réaction am yaa parce que nit ku ne tamit nit nga ñun ñëpp ay doomu aadama lañ tey su ma la fekkoon nga taxaw ndey ku ma ma wax la wax bu tegginewul ba pare taxaw ne la maa tey même bu ma mënta dóor di ma ko delloo yaa ngi dégg soo ma mënee dóor nag doo bàyyi may eggali bu may incité nga may dóor ñu xeex mais su ma la ko waxee daw man naa am du la jaral nga may toppi parce que dañ koy gis ci làmb mbër sotti dara mbër daw du ñu jàpp borom après làmb ji continuer yaa ngi dégg boo xoolee même maay gis man maay parce que maay gis lépp bi mu ñëwaatee ba ci butéelam pour bëgg a sotte ko ci la gis deret ko mu gàddu baa ba nag dew dugg ca biir ful ba xam nga booba xam ne moom pare na parce que nàcc boobu metti na muy loo xam ne daal encore une fois ñun ñi nga xam ne ay xale lañ di ay jeunes wala sax du mën a jeune ñun sénégalais yi ci suñu bopp parce que des fois da nga gis di def yoo xam ne ni ay tuux yi doona la yaa ngi dégg kon ñun ñëpp la ñu wax nañu jéem a yaraat suñu bopp xoolal suñu ay comportement wax bu ñaaw amul njariñ jëf ju ñaaw waxi noppi nit da ngay jéem di wax lu rafet di jéem a jëf lu rafet te yéene ñëpp jàmm yaa ngi dégg njuumte nag si àddina mënta ñàkk mais boo juumee buñ la ko waxee nga nangu ko yaa ngi dégg mais daal nekk fi sam waay boo meree dem ci bis taal boo meree yàqub arène boo meree fu ne nga koy gisee football ba oto jàmbur ya kere gis nañ la xew ndar fu ne di yàqate ay loo xam ne ñun ñoo ko moom yooyu nañu lu ñëpp bokk kenn du koy yàq des koy sàmm est-ce dégg lu ma lay wax li ci des mooy alal it maanaam li ñu bokk tey li nga xam ne république bi moo ñu ko jox ñu bokk ko arène nationale bi ñëpp a ca bokk ndax gis nañ rapport def fa concert ëllëg keneen mën na koo soxla keneen mën na koo soxla te ko ko ci soxla yoon da la koy jox parce que réewum la ñu ne kon loolu ñun ñëpp a ko bokk maanaam lii li ñu bokk nañu ko sàmm ndax kenn du ci mer ba dem sa kër taal ko man gisaguma ko man kon yenn ni yabaate la nday Kumba Fall Babacar meragu fi te des fois ma mer mais meragu fi ba taal sama kër wala ma sama téléphone bi dóor ko ci defaguma ko xam nga Leewtoo sax mën naa mën naa mertaal taal ko mais bu keroogee mën nañ ne ko xanaa kon ñëpp ko bokk waaye est-ce yoon la du benn yoon lu ñëpp bokk dee su ko yàq dee su ko sàcc yaa ngi déglu ma la wax li république bi bokk bu ko kenn sàcc li république bi bokk bu ko kenn yàq ku ko def itam defoo la war te ëllëg bu dul fii di fële di nga ko layoo waaw Babacar comme la ñuy wax rek làmb dafa baaxoo ak ñi nga xam ne dañuy euh, dox seen lu ñu jël seen bâton de pèlerin gis nañu euh, euh, bu bu nga xam ne booy ñaaw bu mu dooree woon sos nit ñi dox nañ si ay tànku jàmm suspendre Tyson bu ñu suspendre tamit nit ñi dox nañ si ay tànku jàmm tey jii xamaan xaaral tamit nit ñi tamit doxaat aussi tànku jàmm pour CNG teggi daan boobu mais tamit est-ce tamit tey yoon est duñu bàyyi CNG daan bi teg si seen kaw nu mun a yaruwaat tuuti nit ñi. xam nga li nga wax nii dafa dafa xaw a mooy dafa xaw a ute Tyson dafa bëre ak Bombardier ñu daan maanaam mu jàpp ne dafa daan arbitre nañ jëli jaax la mu fitti dem sàqi dem ñibbi xam nga kooku gaañut kenn moom la mu def moo ko def ci conscience su boppam saboté wu bëri na donte nag dafa waroon a ñëw bëriwaat ndax loola honoré wul sport yaa ngi dégg ku ko def dañ lay sanctionné waaw coow nag bu amee ku néew ñu kenn du ci dox tànki jaam waaye du tere itam nag voilà Boy Niang sos itam la la xew xewul ca biir làmb ja ci euh, fu ñu leen woon la xew RTS dóorante am fa waaye taxul nag kani nit ñi dañuy def lu leen neex rek ñu ci dox tànk déedéet am na yoo xam ne nii moom wax dëgg yàlla mas na cee jox tànk jàmm mais am na yoo xam ne nii moom comme li am bërki dem ñëpp toog amateurs yi dagg seen ay billets ñu def lii te li ci des mooy promoteurs yi nañ leen gën a jàppale te jàppale wuñu promoteurs yi encore une fois parce que xam lu tax promoteur bi mënta génne 1 million fay estat 500000 fay sécurité 500000 te sécurité bi sax ñu naan manqué nag matul kon promoteurs yi nañ leen gën a dooleel parce que tamit ay ay ay ay ay maanaam ay privé la ñu te lépp lu ñu mën ñu ngi koy def mais sa gorog moroom waxaale ak yow fay la xaalisam nga war a ñëw sàmm bés bi bëree jóge fa jëli la nga moom mu am mu jël la mu moom moom bu pertee muñ ko bu gañee muñ ko nga ñëw saboté bés ba yàq ko dem ñibbi loolu yaakaar naa nit ku nite sax warul koy xalaat nit ku nite sa warul di xalaat loolu voilà ñu jógee nag si coow loolu ba xam ne xam naa ne moom dina continuer semaine bi yëpp ñu dem si leneen si diggante Elton ak Nes journal bi ñu neen entre ay défaite ak ay saison blanche est-ce ñaari mbër yi ñoom laamu ñàkku leen ba faaw Babacar ah déet laam nag waragu leen a ñàkk laa foog parce que yaakaar naa ne Elton gis nañ ko di wala boog Nes génn fi di wax di wax waxu ay mbër yu muy baax guy gi nee na ko may revanche kon kooku yaakaar naa bàyyeegut làmb génn gu ci itam parce que jeexalagul Elton mi combat ma gri de presque tout taxaw am mënoon na caa am xëy na ñàkk déggoo indi taxawul mais yaakaar naa ne taxawoon na ba pare far yàlla def ba déggoo amul nag promoteur wut beneen mbër muy Abdou Diouf xalaat naa ku leen boole am combat bu neex waaw ndax mas nañoo bëri journal bi ki nga xam ne mooy Wally 2 bu depuis euh, ginnaaw bu mu yibbisee jógee Canada neen daal ni ngi dox euh, moom ak euh, doomu dàngu waaw loolu de combat bu neex la ndax doomu dàngu moom yaakaar naa ne mbër la moo xam ne fi mu nekk nii li mbër li mbër yi di mat mat na ko wuli dee itam xale la boo xam ne mu ngi ci aw yoon di def lu leer a leer a leer ndax daaw gis nga dama naan jël bi gën a réew rëy daaw ci làmb moom moo ko daan diggante ak ambulance bu Thiès Euh, suñu jógee nag sunu laam nañ dem si record record nag ñi ñuy wax combat yi nga xam ni mooy combat VIP yi nee na nag euh, Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy booy Niang Eumeu Sène ak Bombardier nee na daal mois bi daal mooy mooy mois wu dernière chance ndax suñ si génnee rek saison bi parce que ñi juróomi weer a si des te suñu génnee si février ñu wutal leen combat pour combat yi a taxaw dina xaw a jafe loolu Babacar waaw parce que février bu ñu fa génnee dañuy dugg mars avril weeru koor bi ñëw buñ ci jógee après buñ kooree nag ba korite ak drapeau chef d'état bi yooyu nag bu taxawee saison ba di waaj a tëj pour ñoomaat combat moom day daal di jafe kon li leen di ñaanal daal ku ci ne boo gisee lu gën ci yow booye boo nga teel koo jël parce que bu février bi làqee moom bañ dugg mars ah dootul yomb waaw su jógee nag si bër dóor dañuy dem si lutte olympique yi ni ñuy waxal ni ñuy xamal si journal bi ne ñi nga xam ne demoon nañu Alger juróom benn mbër yooyu demoon Alger représenté Sénégal championnat d'Afrique ñu indi benn médaille euh, d'argent si ci Anta Samb nee ñu nag tey la ñu yibbi si tey si minuit Babacar waaw ñu ngi leen di wax ñu egg jàmm rek waaw di leen di leen félicité di leen encouragé ba tey parce que xëy na lañ doon xaar ëppoon na loolu waaye nag ku dul may bopp moom loo am rek koy sant suñu borom la ca wax leen ñu gën a yokkaat liggéey bi rek pour prochaine fois journal bi aussi mi ngi xamale ki nga xam ne mooy Boy Faye ginnaaw mu amee défaite ñaari semaines yi si ginnaaw nee nañu daal ubbi na compteur victoire am dimanche bi ñu génn fees Adrien Senghor. ah waaw parce que ba mu jogee Maroc. surtout bees ba mu jógee Maroc ba tey defe naa ne ndamam koy të. waaw final na nag ñàkk ay final euh, dimanche bële passé ñu ngi ko daane demi final mook diggante ak nga mooy euh, ah, ne mbër la bu jëlee tournoi du bett kenn booy fay kon ñu koy féliciter a bëri ki dem digganteem ak Obali Séri Sira muy nuyuwaale nag soxnaam Sira <laughs> <laughs> euh, ne mooy moom daal su fekkee ni yaakaar na gañewu fa fee si dëkkam nag moom mi moo fa teg nawal Babacar ah. mm-hmm. moo la fa maanaam prophète mooy ab ku ñu ab yonent maanaam waaw maanaam daal moom moo fa teg nawal daal moo fa teg tànk ah, a dégg daal seeti yaat moom xam naa ne ah, ren ñëwaat na te ni mu ñëwaatee ren itam daa mel ni nag moo gën ni mu ñëwee woon daaw mm-hmm. parce que gis nañ mu ngi gañe ay tournoi doonte Dakar nag euh, gañee gu fi mais nag vraiment itam mu ngi wane boppam bu baax a baax fi mu nekk nii ci àll bi mm-hmm. Babacar nag si kàddu yoon la leen tàggoo leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu mooy nuyu suñu yaay merci nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu Asta ne DG Barama Chéri Khadija Diallo depuis Italie nuyu ki nga xam ne mooy samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya Garam Fallou nuyu ki nga xam ne mooy bébé Moussa nuyu Abdou Gueye depuis États-Unis Baye Fallou Diamagal papay euh, papay Cité ki nga xam ne aussi mooy Ramos Ndiaye Djibi Bamba aussi yaa ngi si biir Babacar nee na gëj nañu dégg. waaw jibi bamba ñu koy nuyu di ko ziar moom gëj koo dégg wóorul maa ngi koy nuyu bu baax a baax jibi yàlla na sa jàmm yàgg di nuyu tamit omso wax ne ko kontaan bu baax a baax a baax omso yàlla na sa xam nga di tamit ñoom tuuti yaay sarr xam nga duñ leen fàtte depuis Espagne maa ngi koy nuyu di nuyu ñoom xadiroos euh, Ndiaye moom it Allemagne duma ko fàtte ma Fall ñoom Baye Sall Dieng Paris Fallou seen Brésil xam nga ceebu jën bu muuruloo moom itam mu ngi ba Brésil ma dikkee bu Balla Gaye de mu ngi ba Brésil di nuyu fépp fu waay nekk Balla Gaye waaw Balla Gaye lañ koy wax du Balla Gaye mbër nag moom mu ngi Italie sama waay la Balla Gaye maa ngi lay nuyu di nuyu Fallou Niang moom tamit doomu ndeyu Boy Faye maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xam a baax di nuyu ñëpp ñëpp ne daal ñu ngi suivre Serigne Ndiour bu baax a a baax di nuyu Lanjang bu Eumeu Sène moom tamit maa koy bégg bu baax a baax di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy suivre Ibulaay du ma la fàtte borom oto yi maa ngi koy bégg bu baax a baax di wax que ni yàlla na ñëpp am jàmm di wax que ni daal tey tamit Père Bécaye daf ma invité ci émission L'Oeil du Tigre waaw pour ñu bàyyi ci xel internet yëpp di nuyu Père Bécaye encore une fois rek invité na tey borom site internet yi boole ci Babacar defe naa kon loolu te fierté parce que moom comme lu may wax rek idole la ci ñun ci lu ñuy def ni Père Bécaye ci xam liggéeyam am ak ñëpp jàmm neex deret te réyul reewul te loolu bokk na ci ñun li ñu gën a tax ñu di ko roy yàlla na jaamam yàgg di nuy waa groupe Futurs Médias yëpp di nuy tamit sama xarit sama rakk Saliou xule borom Zik FM maa ngi koy nuyu di nuyu Mariama Ba Rimka Couture kenn du yow Seex borom ñaw yi maam Seex borom Daaru Salaam Couture Ndey Kumba Fall daal yàlla na àddina bi yëpp am jàmm waaye Ndey Kumba ñii di yàq mel ni golo yu dugg ci toolu ñam bi nañu bàyyi yàq gi nekk ci réew am réew des koy defar nañu bàyyi yàq yàq baaxul yàgg maar mbaa seen koñ amul ay yàqkat amu fa de yow mbaseen seen koñ amul ay yàqkat ak yaay itam bu fa bi yàqkat ne nañu bàyyi yàq. si biir allah.